رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد خمنا نوخ لنغا خمنتنا مملون يونت بوخور مويبو أمين لنيخ نوخ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مبولم خيتي چنت نيالنا يالا ميغا خمنتنا لب لباخ تخيولم لي أمي كون ليغا خمنتنا مملون يالا دفل مويلقي بيغا خمنتنا moonu taxoon a jóg muy jooxe umra ci biir liggéey boobu ci biir tukki boobu ay ziyaara ak ay bind yu rëy rëy ak ñaan ak mboole mu xeeti jaamu yàlla yi ñu fi def yépp yàlla defal ñu tawfiq ba ñu dajale ko kon yalla ñu ko yàlla nangul waye sa yu ñu fi bëggé déllu ci yalla ñu fi yalla déllo ci mm. suñu mbokk ya nga xamné mom lañ bayyi gannaaw it ñu yobante ñu ay ñaan ñom ñepp yalla na yalla fa seen alamin te ñom ñepp ñi bëgg ñew fi yalla na leen yalla yombalal wir ak am am bu ñu ya rabbal alamin ya ya euh, mbokk yi euh, mbir mu nekk bo démé ba ca jéxit ga war nga xol bindi ya nga xamantene mom nga jëlé ci mbir moomee tukki bii nga xam ne moom lañu tukkiwoon mu nekk tukki jaamu yàlla ngir joxe umra bari na ay bind yoo xam ne moom lañ ci mën a jële ñun ñëpp nañ jël bind yooyu ñu note ko di ko demaale ba ba ñuy dellu waat fii insha allahu taala bind yooyu bi ci jëkk mooy nangul yàlla nangul yàlla mbokk yi ku nangulul yàlla doo ñëw ci béréb yi di jaamu si yàlla ndax ñew ci béréb yi dafa am lu mu laaj dafa laaj nga jël sa alal joxe dafa laaj dépense ci walu alal ñaarel bi dafa laaj nga bayyi sa yitte yépp yépp mbolem activité yi nga xam ne nga doon taxawé Sénégal te xam nañ ni ñëpp am nañ fa ay activité yo xamante ne moom la ñuy lépp nga won ko gannaaw dem bayiko dafa laaj effort ci walu yaram nga xam ne ba ñu ñëwee ba léegi xam ngeen ne kenn noppaluwul tey jii nga dem fële tey waxtaan tey nga ziyaare ji tey nga dem tund ziyaar tey nga umra tey nga def leneen kon ba ñu ñëwee ba léegi noppaluwul mm-hmm. lan la ñuy dabu ngërëmal borom bi tabaraka wa lan moo tax ñu jóg di def loolu mooy nangul yàlla loolu moom lañ tuddee al inqiyaad mooy wommatu ci ndigalal yàlla kon ku wommatuwul ci ndigalal yàlla doo mën a def jaamu yàlla gu toll nga xamne dafa laaj effort ci walu alal dafa laaj effort ci walu physique kon lolu moy bind bi njëkk bi nga xamante ne moom la ñuy ci jaamu yalla gi moy nangul yalla mbokk yi ni ñu nangulé yalla ci umra bi nañ ko nangulé yalla ci mboolem xéetu jaamu yalla yépp mm-hmm. mo xam ci julli la mo xam ci wor la mo xam ci baaxé sunuy wayjur la mo xam rafetal jëme ci sunuy mbokk mo xam rafetal jëme ci sunuy dëkkandoo nañ nangul yalla ci aspect yëpp ci côté yëpp mbokk yi bañ jógee Sénégal ak mboolem xeeti jaamu yàlla yi ñu def ci tukki bi yëpp kan moo tax ñu def ko yàlla subhanahu wa taala képp moo tax ñu taxaw def jaamu yàlla yooyu yàlla képp moo ñu tax a jóg moo tax keroog ba ñu duggee ci jaamu yàlla gu rëy gii di umra lan lañ wax dañ ne ko labbayk allahumma umra ne ko yàlla wuy si nañ la ngir joxe umra ngir yow nga xam ne du ma sàmba mooy tax may umra du bëgg ku ma gis du bëgg ku ma yëkkati du bëgg dara daraja du bëgg dara yi àdduna waaye damaa ñëw wii si la ngir jooxe umra bi ngir jaamoo la ko yow yàlla kon bu booba yaa ngay fésal sa cellal ci jaamu yàlla yii nga xamante ne moo la tax a jóg nga di ko jooxe naka noonu mboolem xeeti jaamu yàlla yi nga xamante ne yaa ngi taxawee di ko def te ku ne xam na ni waxoon nañ ko jaamu yàlla gi bu sellul ngir yàlla yàlla dala koy delloo loolu amul werante jaamu yàlla goo def te sellaloo sa yéene ngir yàlla képp yàlla dala koy delloo du ko nangu kon condition la ngir yàlla nangu sa jaamu yàlla mooy nga sellal kon umra gi mi ngi ñu doon jàngal naka la nit ki di sellale jëfam ngir yàlla subhanahu wa ngir ne ko yàlla kat wuy si naa la umra ma tax a jóg yow képp yaa tax ma di ko def ñetteelu bind bi nga xam ne dañ ko jël ci tukki bii muy bu mat a bàyyi xelit mooy yonent yàlla bi mboolem xeetu yàlla gu mboolem xeetu jaamu yàlla gu ñuy def war nañ koo teg cim njàngaleem ndax moom la yàlla yónni ci ñun loolu rek doyoon na moom la yàlla yónni ci ñun ngir mu jàngal ñu nan la ñuy jaamoo yàlla kon yonent boobu lépp lum ma digal dama koy def nam ma ko digale fam ma ko digale ca waxtu wam ma ko digal ca façon bam ma ko digale ca lim bam ma ko digale mbokk yi bi ñëwee di wër kaaba gi ñaata yoon lañ koy wër juróom-ñaari yoon lu tax waruñu ko fukki yoon ndax yonant moo ñu jàngal lim boobu ne noonu la ñuy jaamoo yàlla ci wër kaaba gi bañ demee ca maqaama ibrahim julli nañ fa ñaari rakka moo ñu ko jàngal safa ak marwa lu tax ñu daw ko juróom-ñaari yoon dawuñu ko fukk dawuñu ko lu ko ëpp ndax yonant moo ñu jàngal lim boobu ne moom la ñuy daw safa ak kon ñu wommatu ci ndigalam moom yonant alayhi salaatu wasalaam nim ñu jàngale jaamu yàlla gi ñu toppe ko ba ñuy ñëw fan lañ armale Madina ndax Madina lañ déparé lu tax ñëwuñu ba yegg Màkka doog armal ndax moo ñu xamal ne kuy ñëw Màkka ngir umra am na foo armale bu dee Madina nga jógee Madina nga war a armale ñu dem ca béréb boobee armala fa noonee kon liñ doon def ci umra bi yépp lu tax labbañ xewuñu avant ñuy umra lu tax tey ñu toll bi umra ba noppi nekkuñu di labbay kaw moo ne labbay kaw lu baax la de lu tax defuñu ko bi umra ba noppi lutax defuñu ko avant umrah, lutax buñ delo senegal do deg kenn muy labbay kaw ndax yonent bi moñu jangal ni labbay kaw ak limi nek bati wetal yalla lepp mhm. ci bir ak wala ci umra rek nga koy def même ci bir umrah gi danan la fi nga armalé ba fi ngay tambalé wër kaaba gi fofu la labbay kaw bo doon wër kaaba gi di labbay kaw and ak labbay kaw lu bax la dañ na la wutek sunna de kuy wër kaaba gi du labbay kaw de motax mosulé na deg ñuy wër kaaba gi ngeen deg kenn ci julit ñi di labbay kaw mhm. lu tax loolu ndax lislaam moo ñu jàngal yonent bi moo ñu jàngal ne labbayka moom boo commencé wër kaaba gi ci umra jeex na bu dee ci aj la bu ñu xasee ba sànni jamratul aqaba bi su tabaski labbayka wu jeex na dootoo dégg ci aj gi ku labbayka wu ci biir aj gi ba ba aj gi di jeex kon wommatu ci ndigalal yonent alayhi salaatu wasalaam topp ko ci ni ngay defee jaamu yàlla bi loolu dafa munta ñàkk muy bind boo xam ne umra gi jàngal nañu ko waaye yemul ci mboolem xeetu jaamu yàlla yi ngay def yépp muy julli gi ngay julli ni ngay jullee rakkaa yi ngay julli béréb ba nga koy defee waxtu ya nga koy def loolu lépp sharia dala ko tegal yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngal la ko boo julli woon tisbaar juróomi rakka doonte julli lu baax la juróomeelu rakka boobu day yàq sa tisbaar boobu bu dee yàqu te julli ga day yàqu lépp lu tax def nga lu baax demoo ne mooy da ngaa dolli ab rakka waaye day yàq sa jaamu yàlla loolu mooy jàngale gi umra bi di jàngale ni nga war a tënkoo ci njàngaleem sayyiduna muhammad ci jàmm yàlla koy def naka noonu ci tudd yàlla yonente bi alayhi salatu wasalaam ay tudd dul jeex yooyu def suba ak yooyu def ngoon booy tëdd boo yewwoo booy dugg booy génn booy dawal sa oto booy tukki lépp booy dugg sax ci wanag ak boo génnee lépp yonente bi alayhi salatu jàngal la ay tudd yàlla yoo xam ne moom nga cay def bu boobaa jullit bi li ko war mooy tudd yàlla googee mu def ko fa ko ko yonent digale ak même ko ko digale bu dee tudd yàlla la goo xam ne dañ koo boyal mu boyal ko comme ni ko sharia boyale comme subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim nga xam ne amul lim nga di ca def boo sonnee bàyyi yi am lim nga yem ca lim bala yonent jàngal loolu bind la boo xam ne umra ji dañu koy jàngal comme ni mu existé ci umra bi mu leer naññ noonu la existé ci mboolem jaamu yàlla yépp nañu tënku ci njàngaleem yonent alayhi salaatu wasalaam ndax moom la yàlla yónni ci noonu